Dakar Buzz euh, ñu ngi leen di nuy di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo ak yéen tey nag euh, li ma naan seen émission bi nga xam ne moom mooy samp dënd rek mën naa ne koo samp dënd ndax kin seet si euh, kenn la ci millier làmb di Lamine Samba di nit ku baax ñëwoon nañ fi daaw yàlla def na fekkewaat nañ ko ren ñëwaat nañ fekk ko ci daral bi fi muy jaayee xar yi nga xam ne moom lay jaay at mu jot alaaji Lamine Samba. Bécaye wutalu ma liggéey jàngalu ma métier xamul lu ma indi ci presse. mais man maa ko tànn mooy sama idole mais moom it dafa tànn man maay idolam fépp la koy wax kon donc ñàkk ki ñaan weesulu loolu jàngaluma ko métier wutaluma ko liggéey loolu nga def woon dafa rëy saa toogeek toogee man mbégte ngay am si man man tax nit ki li nga joxe rek loolu lañ lay dellowaat maa ngi lay ziare maa ngi lay jox sa wàccuwaay. li nga joxe lañ lay dellowaat fii ñu la fekk tey macha allah gis nañ gerte gi. gis naa fi xar mu ne gis naa fi xaru cent cinquante mille ba xaru ñaata. presque un million deux millions mais am na ci xar yi du la wax ban la boo xam ne jaayuñu ko buñ ñu ci fayoon douze millions duñ ko jaay parce que xar mi lim ñu mën a jëriñ la mais mi ci biir xar yi nag mais doo ko xam. xam naa xar bu garaaw la baayam ndaanaan la xar mi ndaanaan la xar maa ngi fii ci biir xar yi mais xamu leen ko ku ci fayoon douze millions duñ ko jaay. éleveurs yu mag yi nag ñu ngi fiy jaabante di ñëw parce que xam nañ xar mi xam nañ baayam baayam jël na championnat Sénégal ba tay ah baayam jóge na fi dem bitim réew te xar maa ngi fii ci biir gétti gi. xar maa ngi ci biir gétti ah? ah, loolu de xanaa ngeen def jàngat te xool xar yaa ngi ci biir xam naa daal man xar ma njott xaw ma moom lam du moom daal am na ma njott nag. en tout cas dégg nga maanaam mënoo fexe ba ma wan la ko te su ma la ko wanul doo ko xam mais éleveurs yu mag yi ku ci taxaw fale dalay xeeñ. sang bi ñoo lay xeeñ xanaa xamoo éleveurs yi comme ay dëmm comme jamaïcain bu gis mbër rek war la jox avance <laughs> da lay xeeñ combat yu neex ni muy xeeñee promoteurs yi noonu la xar yu baax sang yi di xeeñee éleveurs moo tax temps yi yëpp may ñu ma jàmm guddi ak bëccëg xar mi jaayut dama ko exposé nii rek benn xar moom wallaahi mën naa jënd presque douze xar fii ba la treize benn xar boobu waaw. bu ñu dikkee ci xar yi Lamine li ma waxoon naa laaj doon naa la ko daaw xar yi yaa koy yar wala looy jënd di ko jaay. yu ma ci judduluwul maa la yar su ma nee maa la yar xar moom boo ko yoree 6 mois ba 7 mois rek yaa ko yar xam nga li nekk ci moom xam nga li muy bëgg xam nga li muy bañ xam nga day mbëkke mbaa du mbëkke loolu yëpp loolu la dem naa ba nag léegi virus bi dugg na ma éleveur la léegi bu ndaw laa nag waaye. c'est xam nga tur mooy tooñ boromam rek mais ñi ma fi waaye gaa yaa ngi fi gars yi soo leen fayee seen xar waaye yow <laughs> cent millions duñ la ko jaay parce que xar ma lam leen di mun indi la ma jox la secret tey lan moo tax gars yi di euh, nga naan fay nañ ma xar vingt cinq million ma bañ li gars yi ne xar mi fay nañ ma si cinquante millions ma bañ fay nañ ma vingt cinq millions ma bañ du yàpp wii de dama lay jox technique bi xam nga xar mun naa am cinquante jabar xam nga lool cinquante jabar day am fii fii vingt cinq fii vingt cinq moom nga denc ko denc ko ba mu nekk en chaleur jigéen ñi nekk en chaleur nga dugal ko fi am vingt cinq jigéen bum ci yéeg nga jàpp no suñ borom dafa mel ne suñ borom suñ borom moo kéemaane bu mu ci bu ci yéeg nga jàpp ci vingt cinq yi nga génneewaat ko dencaat ko quinze jours encore defaraat ko piqué ko defaraat ko. dugal ko ci yeneen vingt cinq yi bu mu ci yéeg nga jàpp Serigne Fallou Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla defal jàmm Serigne Fallou Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla defal jàmm ay président Macky Sall tàllal nañ la suñu loxo dimbale ñu nga baal Luc Nicolaï sa place nekkul kaso dimbali ñu ngir yàlla président Macky Sall jàpp ci ngir yàlla vous êtes le gardien de la constitution tu es le chef suprême des armées jéggalal Serigne Fallou Luc Nicolaï bu fekkee lu ñu war a cotiser la na waa làmb ñëw ñu cotiser ko bu fekkee lu ñu war a bind la na waa làmb ñëw ñu bind ko Bertrand Tulli li Nicolas doomam la te ñëpp xam nañ ñoom ñaar seen diggante nañ ko jéggal. mais jotul waa làmb dajaloo dem seeti président. moom laa la wax président comme fi ñu toll nii mbas mi neexut a gis président mi ngi lay seetaan feneen ak feneen ñu ñuy seetaan na ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi jéggalal ñu Serigne Fallou Nicolas eh liggéeyal na Macky Sall ah. moo la xam lu mu liggéeyal dafa dafa dafa fexe ba ba ba ba. ba canaliser jeunesse bi ndax keroog ba mu taxawalee combat Ama Baldé ak Modou Lo coow li amoon ci réew mi ci politique lépp a fay Ama Modou Ama Modou keroog bañ jàppee Luc Nicolaï Sénégal yëpp naan oh ñëpp a découragé kon xam nga am na lu mu liggéeyal réew mi moo tax ma ne la place am du kaso moom ci boppam moo ma wax ni ma Serigne Fallou Luc Nicolaï est-ce que xam nga ni c'est l'un des des des premiers du Sénégal xam nga lool moo ma wax ni ma combat bu mu mës a tëgg même bu dee cent millions day jaay xar dem dem joxe avance. faaw ma jaay xar. Luc Nicolaï donc laa gis xaram ëmb nga ñëw fay ko ci xar mi un million te xar mi wasinagul. loolu de ma nopp bu baax mi de. xam moom ay cent rek lay am moom xar muñ fay tudd rek cent am moom cent am da koo yor ay xaram dañ leen di xëccoo xam nga xar sept mois lay ëmb. bu bu bu ñu leeree jàpp na rek éleveurs yu mag yi dañuy dem fay ko un million te mbote mi juddoogul bu mbote bi nampee un mois ñu ñëw jël yóbbu. léegi yow multiplier un million pas pas cinquante ñaata la cinquante million waaye yow xar moom ku bu xar mu góor boobu bu ñu la ci fayee cinquante millions di nga ko jaay doo ko jaay di parce que li mu lay la. doo ko jaay ñu dikk ci làmb nag combat taxaw Balla Gaye Gris Bordeaux boobu combat noo ko gisee. coow Pikine ah coow Faas. ma seeti Gris doo mu ne ma bee damaa yóbboon Balla Gaye à l'usure bii dama koy cons du ma ko daan ko. Gris Bordeaux de bokk na ci mbër yi dàq signé ci làmb ji Balla it bokk na ci gaay mbër yi dàq signé ci làmb ji ñoom ñaar seen signature sax mooy dàq seen làmb ndax seen làmb bu ñu ñëwee bee calcul la waaye bii du doon calcul bii dañuy xeex kenn ku ci nekk xamante na ak sa morom. kenn ku ci nekk mais xeex nañu mais xeex ba dëgguwul. Balla Gaye mu xeex ak Gris Bordeaux Balla dóor Gris dóor Balla dóor Gris dóor Balla songu Gris rasu ñu tàqali ko Balla demul xeex la doon wut mais wutul woon jàpp. pourtant ñenn ñu bari ci amateur dañ ne combat boobu sax bu ma du neex. yow li ngay def ak man nii neex na combat Balla Gaye Gris Bordeaux moo koy dàq maa la ko wax. parce que dañ cee amoon déception de la. ci daanu moom jàppal ni booy dinañ la def ndaalu jàkka ji. ku ci daanu ah ndaalu jàkka ji ku jow naan di ku lay tere. kan la ci gën a defet gën a bon est-ce xam ñoom ñaar ñëpp ku ci daan booy ñang dootu la bëgg guy gi dootu la bëgg ku ci daanu laa la wax man maa la ko wax lamba laa lay wax de Fadel Fadel lamba laa lay wax xam nga booy ñaa ngi taxaw naan Balla jox leen ma Balla euh, euh, guy gi doon laaj Gris Bordeaux bañ ku ci daanu ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye guy gi du la bëgg booy ñang du la bëgg maa la wax loolu lamba garaw dama lay jox lu tax làmb garaaw jamono yi Yaxya Jóob Yékini bi muy bëre ak euh, euh, Bombardier ne bëre naa ak moom ñaari yoon maa ngi bëre ak ñett moom ñetti yoon dootuma bëre teg moom ci àdduna waxul loolu ñëpp di ko dégg waaw mais bi bi bi Bombardier yoraatee couronne roi des arènes lu Yékini wax jox leen ma Bombardier parce que la mu yor a tax déedéet juumul lamb du biir day xëy wasin mais wax ja Yékini waxoon mooy. ku la waxoon ku la waxoon ci àdduna ne la làmb dina dem tey ba koo jox avance wu rëkk rek mu bañ nga weddi ko. foofu sax bëgg naa faa lamb laa lay wax. bëgg naa faa lamb laa lay wax dama lay wax lamb après nga dem. ku la ne woon lamb tey xam nga tey li ñu wax naan bañu demb bu ñu nangoo tey seen i pexe jubul. cinq ans ci ginnaaw ku la waxoon Modou Lo dina nekk roi des arènes ñëpp koy weddi. ño ñoonu dañu wax mën na bëre mais dina bëre ba dee du nekk roi des arènes ñëpp loolu lañ doon dégg soo wax ñu naan taay ba kii ba ak yooyu tey fu mu mujj bi mu bi mu demee ba nekk roi des arènes coow li bari coow li bari maa leen ne Alioune Sarr sax euh, Modou Lo des arènes am ministre Matar Ba sax Modou mooy roi des arènes coow la jeex non coow la jeex mais lamb du biir day xëy wusin lamb jekkonte la Balla gay numéro 2 amoon na ci jamono joo xamante ne lamb ji la téye woon ci loxoom waxuma nag lamb da koo rëcc waaye li mu gënoon a bëgg ci lamb dem na muy roi des arènes. est-ce que xelam nekkul ci récupéré waat. laa ilaha numéro de boo ko waxoon jox ma alal bi nga am ci àdduna yëpp nekkaat roi des arènes mu jox la ko. waaye ki ko yor na. ki ko yoroo gën a bëggee ci àdduna bi. Modou Lo Modou Lo roi des arènes am du demee noonu de. da koy calculer benn mbër nga gis ci Sénégal mu daan gaa yëpp di jibile muy for gàllaaj yi muy Modou Lo <laughs> gaa yi dañuy jibile muy for gàllaaj bu gisee gàllaaj bu ko intéressé ci yow da koy këf <laughs> Bombardier Eumeu Sène non ba bo moom moom bu may dem damay yóbbaale kii sapeur pompier. lan da ngaa yaakaar ñu rayante wala. déedéet pii pon. IPRES waaw day am gan. ku ci daanu lamba lay bàyyi doo bàyyi làmb bindal. xam saa loolu yaa ngi koy marqué diggante Bombardier mu seen ku ci daanu. doo bàyyi làmb lay bàyyi doo bàyyi làmb. lu tax loolu. waaye Bombardier benn at ñaari at ko dese di Bombardier bu daanoo ku muy bërewaat. mën naa for ci booy noggatu la. kan lay noggatu bu yaay muy noggatu Alioune ne ko 45 ans yi mat na demal tëddi. Eumeu Sène Eumeu Sène tam li ko dese bariwul tay si nga dof du wér xoolal Eumeu mi ngi psychologiquement mi ngi préparé retraite am il est très dangereux rek la bëgg jëlaat couronne bi dem nelawee ko Pikine ñu wax mu ne maa accu. est-ce que loolu danoo yomb parce que mi dajeel xam ne guy la guy la goo xam ne. faalewul dox. kan moo daanoon kan moo daanoon bu ko bu arbitre lu ñuy wax revanche ou confirmation. li tax nit ñi da wër-wër loo rek rek koo jox mu daw. ah man de rek rek war na wax lim àndal man. man day billaahi Reug Reug war na maa wax li mu àndal. parce que ñu bari ñu ngi naan digganteem ak guy gi man guy gee ma wax ma dégg ma ne ko ndax daa taxaw mu ne ma noo taxawagut lan la. Mhm. li problème mu Reug Reug. Mhm. doole ji la wala galaaj ji la wala lan la. Mhm. yow allah bu bi yow laaj. li problème rek. nee na du ci wax kon xam naa ni Reug Reug la nekk ci moom rëy na. mais daal li ñu ko ragalee man bëggoon naa ngi ni mu tuuti jàng. double moteur coince. <laughs> ah ah Quench luy problème am dama am mbooloo Corse mu la bëre nekk xale. double moteur man gisuma mbër mu ko ëpp doole ci làmb ci ci catégorie am gisuma mbër mu ko ëpp supporter bu jógee waa Rëbës ak waa Medina ñëppay ñëw kooku moom combat de déclassement la ak ay metti ñaari xale yooyu laa gën a ragal ci làmb ji maa la wax loolu. Tyson 2 franc. Tyson 2 dafa am benn humiliation bu mu amoon ci làmb dañ ko jox défaite te mosu koo am xamu ko dafa bëgg nag laver affront boobu ñëw jël franc franc sama njaago <laughs> maa waay mbër mi ñaaw na ay waay franc ñaaw na waay <laughs> maa moom dañoo daje espagne boobu koy wax ñaaw na ma ne ko yow dag ma ëpp doole rek mais ëppoo ma fit yow laay wax yaa ñaaw sama xarit la maa wax loolu waaw. noo gisee boobu ko ba ma doon def analyse ñaari xale Franc dafa daan bébé Saloum gars yi ne da koo tandu mu war a def confirmation pour dem ci kaw xanaa xamoo franc na ko Modou Lo cofal tuuti rek ci benn butéelu bayre may ko rek nga xool mbër ëpp ko doole. waaye Modou nag du joxe butéelu bayre jël mais Modou daal kenn laa gis mu jox ko ci butéelu bayre bi muy père Biram Ñing luñ wax ne Biram Ñing <laughs> sama papa la ma dama koy sànni xeer. muy ku baax mais li ma jaaxal nag Lamine mooy Lamine mooy mooy Tapha Tine boobu ba léegi koo ko jox. bu fanaanoo orange bu xëyee delloo ko lan mooy problème ku ko jëlul da nga koo ragal Tapha Tine rek moo ko tooñ ci làmb li mu faqa salu si Ama Baldé waaw Tapha Tine bëri na fi combat royal moo Balla Gaye numéro 2 takk ci rib loolu kenn fàttewu ko li mu faxastalu ci Ama Baldé rek moo moo ko xaw a tardel tuuti ci làmb ba pare nag kaay ma yëgal la ñaar wax ma mbër yëpp de mbër yi ko ñemee bariwul Tapha man keroog ba ma ko invité jongante mooy xool Tapha nii Tapha di ma xool maa ngi naan sama xel lii kañ moo tax mbëri mbëri mbëri ñemewuñ ko. mais pourquoi Tapha la de. neex na de revanche la de revanche bu neex la de. revanche bu neex la ma ne revanche bu neex la tey yaa ngi dégg Gaston li mu wax Gaston nee na bu ñu raisonnable mu tëgg ko. Sa Thiès ko koy mën naa bëri ñëpp. man de Yékini Junior ma jox la benn combat bu neex. keroog bi Sa Thiès bëree booy Niang lu booy lu Sa Thiès wax daa juum du loolu la wax moo ko wax ñëpp taxaw mu ne daa juum maa ko man mais daa juum waa mais ku rimbaxaatoon Sa Thiès ak Boy Niang Boy Niang bu daanee kër Balla Gaye lay dem fanaani directement ne Balla wàccal ñu bëre boobu Balla du ko mën a bañaat te comme ñoom ñaar dañoo nekk ñaari xale yoo xam ne dañu bëggoon a yéeg yéeguñu am lu leen tardel man su ma amoon xaalis damay tëggaat Sa Thiès ak Boy Niang ku ci daan par force mag ñi dañ lay jël lamb laa lay wax yow man lamb laa lay wax de man xoolal ku ku rimbaxaatoon Sa Thiès ak Boy Niang ah lamb dañu ne Sa Thiès dama damaa juum dégg naa sax ay après bi ma dóoree sama loxo daa rëq daa yooyu ak yooyu yooyu yëpp dégg naa ko si ah Boy Niang tardé ci euh, Lac de Guiers numéro 2 xanaa xamoo Boy Niang li jëlul Balla Gaye jëlu ko li mu tardé ci Boy Niang euh, la euh, ba Lac de Guiers ndax ba Boy Niang bu daanoon la deger Guiers par force Balla da koy da koy jël jomu Balla pa passé na foofu xanaa du jël kaasu fondem di jox waa géej waay ñëpp di naan bu yàggee grand bas la koy jox mu naan fonde te grand bas du naan fonde nag nañ waxante dëgg nag Ama Baldé mi bàyyi jàngoro jël ndoxum siti jël Modou Lo ah waaye mi bàyyi jàngoro yëpp jël ndoxum siti Modou Lo dinaa la xamal ñaar de dinaa la xamal ñaar pour nga bind ko tey Ama Baldé egg na Ama Baldé plafonné na lim buggoon ci lamb yëpp am na ko. waaye jël mbër mu mel ni Modou. waay damay bàyyi interview. doo ko bàyyi parce que dañuy waxtaan. dama ne amaa Baldé lim bëggoon yëpp am na ko. royal keroog ma ne keroog ngoon ganu taxawee ñu ne Ama Baldé taxaw na Modou Lo taxaw na yow reporter bi looy wax. ku soufflé ba dal na combat royal ku daan nekk roi des arènes diggante Ama Baldé ak Modou Lo loolu ngay wax yow waa mais bu Ama Baldé daanee looy wax kuy roi des arènes foofu laa yërëmee Balla Gaye nag jërëjëf li ci des dang may fay wala nañ bay interview bi li ci des li ci des dama la alma 10 000 ma jox man 10 000 jënduma de kon alma 20 000 xaalis jënduma kon alma ngor ma jox dama la ne Balla Gaye ñëpp xam nañu lenn la bëggaat ci àdduna mooy nekk roi des arènes waa Balla gay bu Ama Baldé jëlee roi des arènes fu Balla jëm xanaa non xanaa Ama dafay jóge ne ko grand maa la ko may xol bu seddu guy parce que man maa seetaan Balla gay mu wax ci làmmiñ ju boppam daal ne combat Ama Baldé ak comme Modou Lo du combat Ama sama combat la man wax na la ko waaye yow léegi bu amaa daanee fu Balla jëm fu Balla di jëlee roi des arènes day mel di kat ci kër gi am Balla xam ne sunu ñaar ñaar bëgg kenn ki jël ko lu mag ak rakk jël bëgg rakk ji jël ku la lay doon bu boobaa waaye bu Modou Lo daanee Ama Baldé nag combat Balla Gaye ak kenn mënu fexe ba du taxaw boobu <laughs> la làmb di tas nag xam nga fu koy defee am zénith du xaj yii yëpp zénith zénith ba la ñetteeli yoon Balla gay Modou Lo lay doon ndax Balla Gaye Modou mu wax la ko mu waxu la ko li ko gën a métti ci àdduna mooy jëlli bi ko Balla Gaye daan man maa la wax loolu ku xam Modou Lo xam ne jom moo fees ci moom li ko Balla daanaat noonu mooy li ko gën a metti ci addunaam xanaa xamuloo bu dul woon ay ay ay kiiwam ay entourage am nii yëg génn wax ak yaayam mi génn wax noonu Balla lay jëli coow lee ca commencé woon bari rek moom moo tax mais man waxoon naa ko dama koy waxaat man ku ma lebal un milliard man ma tëgg Balla Gaye ak Modou fay leen kenn ku ci nekk quatre cent millions te du ma perte. yow Lamine man du ma promoteur de bu boobaa sama doom ji laa koy jox jamaïcain ne ko milliard baa ngi noonu demal wooyi Balla Gaye bul sax waxaaleeg moom ne ko cent millions ngi nii téyel dem ci Modou Lo ne ko quatre cent millions ngi nii téyel xam nga nu may def quatorze régions laay dem fu ci nekk danaa fa signer contrat danaa dem Paris danaa dem Espagne danaa dem États-Unis Europe yëpp danaa ko wër fenn fu ci nekk danaa fa yóbbu Balla gay danaa fa yóbbu Modou Lo ñu signé fa. eh xam nga lu may def xam nga ku mu koy tuddee Sadio Mané ne ko kaay sa ballon d'or bi nga xamante ne da nga ko am kenn feetewu ko kaay nga feetee ko. ci lii lu tee ko dox lu tee ko dox eh, yow doo ma may jàmm eh, yow may ma jàmm may ma jàmm yow. la lu tee ko dox eh, saa gin taj.